nag li tax ñaari député yi lànk ba tëdd sa naaj wa ne dañu tontu laaj yi nga xam ne enquêteurs yi ñoo ngi leen koy laaj ndax ñoom ne nañu immunité parlementaire la ñu ama bu ñu bëggee daal ñu tontu ci laaj yi nañu dem assemblée nationale si mi seen malaanu kiiraay bu ko defee ñoom bu ñu ñëwee danañ tontu si laaj yi Assane Samb xëy jël xalima ma nee na nag loolee waxi kasaw kasalu waxi picc la ndax lii nga xam ne moom la ñuy toppee ñaari député yi loole nag flagrant délit la te nag bu dee flagrant délit la loole nag jërul maanaam autorisation assemblée nationale ba ñuy jéem a dindi seen malaanu kiiraay ndax article 51 ak alinéa 3 wax nañ si lu leer nañ naññi bu dee nag ab député dafa def loo xam ne flagrant délit la maanaam war ko teg loxo war nañu ko topp war nañu ko dugal ci kaso bi yéen gi di source xëy di xibaar naan ñu ñaari député yi tey ji la ak procureur maanaam dañu leen di defeere yéen kaay gi di Les Échos nee ñaari député yi di Massata Samb ak Mamadou Niang ñaar ñi ñoo ngi dox wuti kaso yéen kaay gi di Libération nee li nga xam ne moom lañ leen di toppee maanaam coups et des comptes la moo xam inspection générale d'État détournement yu mat sëkk la gis ci rapport yi maanaam ñoo xam ne dañuy luubal alalu askan wi waaye nag mbir mi du mujj fenn loolee moom tàmmal nañu ko ci réew mi baaxoo nañ ko ci réew mi maanaam rapport yoo xam ne dañuy génn wax ne ñii ak ñii ak ñii maanaam def nañu ay njublang ay détournement waaye nag dara du leen ci fekk loolee nag mooy impunité dëggantaan l'observateur mooy wax yéen kaay gi di Sud li nga xam ne moom la diggoon askanu Sénégal bu ñu waxantee dëgg daf cee daal di la jee wàllum gouvernance sobre vertueuse waaye nag jamono ji gis ngeen li nga xam ne moo am ci alalu askan we yéen kay gi di bés bi ñu xibaar naan ñu bëri ay ministères yoo xam ne ñoo ngi leen di joxar bi baraamu tuuma ci ay détournement surfacturation luubal alalu askan we maanaam ci ay rapport ministère bi ñu dénk wàllum sport bi jamonoy Matar Ba ñooñee tamit joxar bi nañ leen baraamu tuuma ci ay mbir yoo xam ne mbir yu doy waar doy waar la waaye nag kenn du wax ministère Matar Ba yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na rapport yi nga xamante ni jamono ji génn nañu ko li mu wane daal mooy ay détournement yu bare bare bare yoo xam ne gis nañu ko ci ay ministère yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy bàyyi mbir moomee nag wax ci mbiri Pape Alé Niang ndax coordination des associations de presse maanaam kuréel gi nga xam ne moo ëmb taskatu xabaar yi ñoom nag nee nañu dañuy boycotté bépp activité boo xam ne gouvernement bi danañu ko amala diggante alxamis ak ajumaan te ñi nga xam ne ñooy kilifa yi noppi gi nga xam ne moom la ñu noppi ci mbir mi dafa mel ni daal ñoom dañoo nee nañu nag loolee mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg yéen kaay gi délibération daal di xëy nag ci li nga xam ne moo xewoon ci marché central bu Mbuur ba ñu teg loxo ku ñuy wax Ali mi nga xam ne moom la ñuy tuumal ne moo fa faat lu toll si ñaar ci ay nit am ñeent ñoo xam ne am nañu fay gaañu-gaaño yéen kaay gi nee na enquête bi jamono ji ma ngi wéyee ndax am na juróom benn ñoo xam ne njort nañu ne laale nañ ci mbir mi teg nañu leen loxo te kenn si ñoom tamit ba ñu demee këram fekk nañu fa arme ay télévision yu bëree bëri ay moto yoo xam ne moto yu bëree bëree bëri yéen kaay gi ko ci motion de censure bi nga Askan Wi daan nañu koy jébal nag président bu assemblée nationale ngir nag daal di nërmeele la gouvernement bu Amadou Ba journal bi nee na nag dina leer ni ko suba ci alxames ji la ñu koy voté ci assemblée nationale dana jàll waa wala dee te yéen kaay gi de la ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daat nay wax ci élection présidentielle 2024 moom Macky Sall nee na nag jamono ji moo yor cëggul gu xam candidat lay doon wala du nekk candidat ndax nag nee na Sagna nee na nag bis yi nga xam ne moo dese Macky Sall ci bopp réewum Sénégal ak noot gi nga xam ne moom la ñuy noot maanaam dañu koy compter bis moom dañu koy wàññee Guy Marius Sagna nee na nag danañu daal di jàkkaarloo ak Macky Sall complot bi nga xam ne moom la bëgg a def Ousmane Sonko yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu MC Niass Baye Mbaye moom nag daan nañu koy déglu ni ki ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko ko daal di na Baye yoo xam ne audio waar a doy waar a doy waar a doy waar la jox doyen juge ni ko démba yéene kaay gi di 24 heures nee na audio yi garaaw na génn xeetu garaaw goo xam ne maara détaillé aji saar si boppam di wax ci biir audio yi naan Sonko bis ba mu fa ñëwee dara dafa maase wu rek daal di dem waaye nag lépp Mamour moo ko daal di orchestré yéene kaay gi di ñu xibaar naa ñu mondial 2022 di ki démb Argentine daan na éliminé Croatie ñetti